mbokku téléspectateurs yi dellu si waat noonu ci tirage bu neex bi nga xamante ni Samsung moo leen ko jagleel tey jii ñu nekk ci showroom bu si plaza ànd ak yéen fas yéene defaat tirage ànd ci ak ki nga xamante ni moo di maître Samb teewal fi maître Bernard Samb et ñu ngi fi toog ak monsieur Diop toog fi ak monsieur Diawara ñu bokk ci Samsung ànd ci ak Modou boo ci bëggee bokk da ngay jënd télévision Samsung bi nga xamante ni mooy bu wóor bi boo xoolee ci ginaaw am na numéro de série nga yónnee ko par SMS ci 24 044 boo ko yónnee dinañ la jël boole ci ñi nga xam ne ñoo war a mën a gañee jumtukaay yi nga xamante ni baax na ci kër baax na ci doomu aadama bokk na ci Galaxy s bi nga xamante dafa méngoo ak jamono am montre bokk na ci benn climatiseur boo xamante moom it boo bëggee mu sedd guy sa kër doon hiver dina fa am Samsung wax nañ leen ko télévision la boo xamante ne nii dafa méngoo ak jamono rawatina li nga xam ne moom la ñu jublu mu di coupe du monde di waaj a ñëw ak xew-xewu làmb yu mag yi nga xamante ni mi ngi ci sunu kanam. ñu bàyyi leen ak Modou mu tànn. yan ñaar la nar yóbbul jumtukaay yu neex yi Modou Lo. Modou Lo génneel nañu benn numéro 77. 541 69 18 77 541 69 18 moo gagné split bi di climatiseur bi moom la ko Modou di yóbbul léegi bu nu pare moduloo tànnal nu beneen waaw beneen a ngi nii keneen ku gañe ci yu neex yi di 77 503 87 66. allo waaw dañ doon def fii tirage fii ci Samsung. léegi yow da nga gañe woon fii dafa am loo boo fi gañe woon daal. man la Modou loolu Modou Lo lutteur. waaw. ah bon. Mhm. Ah, allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. si yaa ngi ci waaw man la Modou Lo lutteur Samsung moo taxoon ma lay wow da nga fi benn clim fan nga dëkkee yow. maa ngi Maristes. maa ngi remercier Samsung gagnant bi monsieur Ndour bi nekk Thiès donc moom euh, mandaté pour mu jël loom bi donc maa ngi encouragé également ñëpp mu jënd produit Samsung te. jouer également. man xaw gëwuma ko woon affiche yi laa gis ci mbedd bi. bi ma ñëwee may xool numéro bi ngay envoyé donc mu échappé ma publicité bi jaar mu tombeek moom mu koy def def naa une fois ñu ne ma c'est pas bon ma reprendre ñu ne ma oui c'est bon may ma crédit wu 1000 francs mais Modou rek doyoon na pour man Samsung ñëwoon ak Modou kese sama kër doyoon na. kon maa ngi remercier waa Samsung di remercier Modou Lo man sama fan si la gént naa ko gis ko maak moom ñu toog yàlla kon da ko tuddoon Samsung moo ko yor. Samsung baax ci kër gi baax ci réew mi vive Samsung